bokki senegal bokki Sine Saloum bokki Saloum bokki Ndoukoumane ni ngeen ko déggee ci ñuy wax ñëpp seetlu ko jàngoro ji ñuy wax coronavirus lëjël na àdduna bi fitnaal na doomu aadama yi jaaxal na senegal ci àdduna bi yëpp docteur yi wax nañ liñ ci xam digle li ciy musal nit ñi muy takk masque raxasu dandante te ajandi xew yi ak dajalo yi du ngénte du ciet du gamu du dej nañ ko def ni mu gëna simple te samonté digle docteur yi diglé yi ñu leen di wax bu leen ko jëfëndiko di xol ak xalaat ki wax wala wax way sam leen seen bakkan bi def leen ko ngir seen bakkan ngir bakkanu seen njaboot seen bok seen i ak ak rawatina suñu kilifa ndax kat mag mën naa ba cim réew dëgg dëgg yàlla takk mask raxasu jëfewul te kat ab diir rek la bu ëllëgee bu ñàkk a jotee docteur yëpp man koo ci waa Sénégal comme waa bitim réew ni am nañ yaakaar ne dina jëriñ doomu aadama nañ ko jëfandikoo te rafet njort wasalaamualeykum wa rahmatulahi dégg gëm jëfe muy musal doomu aadama